mbokki internet DKR 221 dal leen ak jàmm ñu daal di ñëw ak yéen ci l' actualité du net daal di koy tàmbali ak euh, mise en garde bi nga xam ne ay fidèles Tidiane daal di nañu koy amal à l'encontre de l'homme d'affaires Aziz euh, Ndiaye euh, ci soirée mondaine yi nga xam ni mu ngi koy amal ca këram ca guddi gàmmu ñoom nag li nga xam ne jàpp nañu ko mooy yooyu les soirées nga xam ne homme d'affaires bi mu ngi koy amal ci résidence am bi nga xam ne mu nga nekk foofee ca Tiwaawan dafa nekk nag ay festivités ya nga xam ne nañu ko mën a qualifier moo nekk d'ostentoire et ci ay valeurs ya nga xam ne seen nab sëriñ Seydi Hadji Malick si rabiyallahu taala anhu daal dina ko fiy bàyyi ñu benn yoon mën nañu ne sax euh, dafa nekk ay mbir ya nga xam ne folklore moo ci daal di gën a fës ba tax na nag ñoom nag nee nañu dañoo nekk ay soirée mondaine ya nga xam ne ñu ngi ci interpellé kii di Aziz Ndiaye ci mu daal di ciy jël euh, ay mesures beneen yoon incha allah ndax nag li ni mel dafa laalawut benn yoon ak ñoom li nga xam ne sant nañu leen ko ci ñu daal di koy amal euh, ci gàmm gi mu nekk nag ab soirée wala sax ab cérémonie ba nga xam ne gannaaw bu ñu ca jugee kii di Aziz Ndiaye gis nañu ne ay euh, critiques yu bëri daal dina koy amal à son encontre laale ak solo bi nga xam ne xale jigéen ñi ñoo ngi ko doon amal kii di oustaz Modou Fall mi nga xam ne nag euh, moo doon gérer waxtaan bi gannaaw nag euh, ba mu xam leen ni lépp la nga xam ne dafay laale ak wàllu cas defante ca diggante Miss ak kii di Aïcha Rasoul Gningue cas wos yi duñu ko fa am ndax loole amu fa mais nag daal dinay tagg na ki nga xam ne moo nekk Miss Ndiaye ne dafa nekk jigéen bu baax nekkaale aussi xaritam ndax ñoom ay xaritu Aziz Ndiaye mën nañu seedeel li ni bis bu ñu jugee sol Zeynab daal dem këram ne dañuy seeti ji Aziz même buñ ko fa fekkul Miss dina leen toppatoo ba ñoom sax duñu sentir ne Aziz Ndiaye nekku fa aussi nag ci kàddu yi nga xam ne daal dina fay rotee bokk na ci mu daal di présenté soxnaam public bi nga xam ne ñoo fa nekkoon xam la ne moom képp ka nga xam ne wax na wax na la dalaa nopp ku dul moom moomee daf lay nax Aïcha Rassoul Gningue mi nga xam ne moom moo nekk ñaareel ci kii di Aziz Ndiaye ak euh, Betty mi nga xam ne moo nekk ñaareel ci ki nga xam ne moom moo nekk Baye Ndiaye nag euh, ñu daal di nekk les absents les plus présents gisuñu leen fa ba tax nag euh, question yu bëri daal di sampu ci ana lan moo tax teewuñu foofee toujours nag ci information yi ñu daal di ñëw ci arrestation bi nga xam ne daal di nañu koy amal ci mbër bii di Ada gannaaw ba mu doon xeex ci ab baar ba nga xam ne mu nga nekk foofee ca Medina moom kii di adafas Fass finalement. daal dinañu koy mujjee teg loxo arrêté nañu ko moom nag daal dinañuy xam ne ne par la suite placé nañu ko en garde à vue ca ba nekk foofii ca Médina la koy toppee nag moo nekk coup et blessure volontaire wax nañu ne sax su moytuwul dinañu ko daal di présenter au procureur à l'issue de l'enquête agression ak insécurité wàllu faat bakkan daal di xewee foofee ca Ziguinchor benn élève buy wuyoo ca turu PAO en classe de sixième moo daal di jam xaritam ba mu daal di mujjee succomber à ses gannaaw ba ñu ko évacué à l'hôpital ki nga xam ne nag moom lañu faat mu ngay wuyoo ca turu CA Sané tollu ca fukki at ak juróom benn ki nga xam ne moo faat nag ñu wax ne mu ngi nekk ab élève en classe de sixième wax nañu ne ñoom ñaar dañu doon xuloo ba yëf ya mujjee dégénéré ba mu daal di mujjee jël ab paaka jam xaritam bi gannaaw li ni mel nag wax nañu ne moom moomee le présumé meurtrier dafa daal di refusé wu dans son domicile familial ngir daal di mën a éviter ay mbokk ki nga xam ne ñoo nekk CA Sané e daal di koy euh, dóor ba gaañ ko gannaaw ba ñu annoncé takk dex yi nag ci li ni ci la ñu ñëw euh, daal di koy arrêté ñu ci wax nañ ne aussi ñoom takk dex yi daal di nañuy jëlaale waajuram bu jigéen ak sëram ngir euh, daal di leen mën nag dañu doon am nag ay menaces de représailles ca ay mbokk ki nga xam ne moom la ñu daal di faat ñu ngi koy ñaanal nag euh, moom xale bi di Seya Sané yàlla na ko yàlla yërëm te xaaree ko aljanaay firdawsi beneen mauvaise nouvelle bi nga xam ne am na nag euh, mu nga nekk foofee ca Touba daal di laale ak ndox bu metti bi nga xam ne daal dina fay wàcce comme vidéo bi ni ñu koy gisee ci TikTok bi dafa am benn kër ba nga xam ne dal bi dafa daal di daanu la maison s'est effondrée gannaaw nag euh, boobu lay effondrement daal di nañuy xamle ne am na kenn ka nga xam ni mujjee na cee ñàkk ba kenam néewam nag sapeur pompier yi daal dinañu koy récupérer ba daal di koy yóbbu ca ca morgue hôpital ba toujours nag eh, ci taw bu métti bi nga xam ne moo daal di wàcc foofee ca Touba gis nañ ne askan wi nga xam ne ñoo fay yeewoo ñoom nag eh, daal di nañuy sonn lool jamono yuñ toll nii gis nañ sax ca mairie ba ndox bu bëri daal na fay taaju boo duggee ca TikTok bi li nga xam ne moo nekk ndox bu bëri bi fa wàcc sax eh, gis nañu ne yenn ci ay xale dañu koy daal live ñu daal di tëjee yile information nag ak kii di Ndeye Astou Sall mi nga xam ne moom daal di nay affirmer sur euh, Sénégal 7 ci gàmmu gi qu'elle est toujours célibataire loolee nga xam ne gisoon nañu ko ay fan yi ñu génn di ab vidéo ak i photo ya nga xam ne mu ngi ci habillé wu en tenue de mariage ab shooting ba nga xam ne daf ko doon amal ab waa ville bu culture rek la woon aussi ki nga xam ne moo nekk Ahmed Silla euh, l'humoriste franco sénégalais jamono yuñ toll ni nag euh, mu ngi choqué la toile gis ngi koy xasaka ngàññ gannaaw bi nga xam xamee ni dafa doon incarné benn sketch ba nga xam ne def ce waroon a jouer benn rôle homme ak euh, le rôle d'une femme en même temps ba tax nag transition bi nga xam ne daal dina koy def ci ab vidéo ba daal di koy posté ci réseau social bi di Instagram daal dina tax ñu bëri mere ko am sax ña nga xam ne dem nañoo bay jël ay vidéo am naan dañu koy collage avant ak après ngir euh, nag ñu daal di mën a génne moom mi nga xam ne moo nekk Ahmed Silla ay kàddu ya nga xam ne doon interprété ci ay rôle ya nga xam ne daal dinay similaire mooy il se sentait bien euh, ci ni woon en tant que jigéen gannaaw li ni mel nag gis nañ ne collage yu bëri ya nga xam ne ñoo ngi koy def am sax ña nga xam ne nee nañu kii dee Ahmed Silla mu ngi leen doon euh, lancé signé yàgg na lool ñoom ñoo ci bàyyiwul woon xel en tout cas daal dinay créer polémique bu mais moom le principal concerné nag jusque là kenn gisugu ko mu daal di ci axtu ay kàddu am ña nga xam ne nag dañoo jàpp ne dëgg la alors que non li dafa nekk tout simplement benn euh,